fur et à mesure muy continuer di ci wax di ci wax di ci wax nit ñi dañuy foog ne mbirum politique la mais ñi nga xam ne il sont raisonnés war nañu mën a xam ne que que muy affaire u Adji Sarr di affaire u Mame amul lenn loo xamante ne complot am na ci léegi nag comme c'est un homme politique bu ko bëggee xëcc ci terrain politique bi la mouvance présidentielle aussi dañ koy rappeler à l'ordre rappeler les faits pour won ko nekk lii dara amu ci lu ci politique et encore une fois gis nga tey verdict tey bii je pense que dafa jeexal wax ji. mais na ko est que na parce que dañ ci xam la alors ce que jeexal na ko. xëy na dinañ ci xam suba. Euh, ndax appel dina ci dina ci am parce que ñu ngi koy ngun ne loolu dina ci ñëw après. mais est-ce que du ñu wax ne peut-être triompher sans gloire parce que bu ñu amalee procès. naam ñëw na benn yoon ñëwaat beneen yoon bi pas il n'est pas présent ses avocats ne peuvent pas le représenter. Mm. mais bu ñu gisee procès boo xam ne benn avocat bi. dañu dañu dañu ko dañu ko suspendre beneen avocat bi ci aéroport bi yegg siwul après génnee nañu communiqué boo xam ne liir nañu ko li waral euh, ñu wàññi ko mu delluwaat dëkkam euh, beneen avocat bi également yarama moom sutante woon bañ naan ñëw naak yooyu yooyu noonu yëpp day incident yoo xam ne am na ci procès bi est-ce que mën ngeen bakkoo aujourd'hui que euh, am ngeen dam xam nga li may wax mooy Sonko sans ses avocats ñu ñu représenté ko di di ñu affaire bi du woon ñun ak Sonko. ba muy ah. nekk problème mu am ndam ak ñàkk am ndam. yaa ngi naan Mame Mbaye de toute façon gagné na. foofu laa bëgg a ñëw foofu laa bëgg a ñëw. dama la bëgg a wax ne que c'est pas entre Sonko ak ak ak le pouvoir mais c'est entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Mame en tant que frère de parti moo tax ma ne la dama koy massawu di ko di ko di ko di ko massawu daal parce que xam naa ne moom coow li bëri na sonn na mais li nga xam li nga wax ci avocat yi gis nga Fatou Abdou li nga xam ne ab sénégalais mënu ko def beneen président bitim réew sénégalais bu ta nekk fii ci biir réew mi ngay journaliste di keneen waroo nagu ab étranger ñëw di ko teg ci ndodd suñu président la république mënoo toll si sa avion def sa Twitter di ñëw Sénégal di xas président de la république Macky Sall loolu dëkk bu mu mun mëntoon doon ba wàccee ci aéroport bi ñu delloo la wala balaa ngaa yegg si sax ñu yóbbu la prison il faut aussi ñun fu ñu mënta bokk ak camp bu ñu mënta bokk suñu institution nañ ko respecté mais nañu fexe ba étranger yu ñuy fekk si aussi respecté leen kooku mënul xasee président Macky Sall ca biir avion wala ca biir aéroport ba muy départ bëgg a dugg Sénégal def lu ko neex et je pense que je félicite le ministère de l'intérieur et les services de l'aéroport loolu warutoon mën a nekk maintenant pour le cas de la suspension mais rappelez que Maître El Hadji Diouf a vécu le est-ce que am na différence à 24 heures aussi mais est-ce que am na différence donc impartialité moo fa am dama jàpp ne que ça c'est vraiment seen domaine la ñoom ñoo apprécier ñoo xam les critères s'il faut mm-hmm. truc mais par rapport à l'avocat étranger bi nga xam ne ba muy génn Sénégal ba muy jógee dëkkam la commencé di am ay propos yu muy wax yu indécent envers le président de la République je pense que loolu moom sénégalais sax amul dafa wax avant muy ñëw mais ci procès Khalifa Sall avocat camerounais ñëw na fii euh, def benn plaidoirie ci tribunal wax ne Sénégal bi ma fi ñëwee dafa mel ni askan wi dañu ñaw seen gémmiñ ndax tyrannie bi nga xam ne moo am mais xam nga bëgguma bëgguma bëgguma tudd ay dëkk vraiment mm-hmm. par pour des raisons de vraiment élégance diplomatique mm-hmm. mais je pense que li ñuy def fii Sénégal wala ay étranger sañ di ko fi def am na dëkk yoo xam ne kenn xalaatu ko kenn xalaatu ko maintenant avocat bu sol roobam nekk ci biir tribunal bi nag di plaider je pense que foofu la gën a amee marge de manœuvre pour wax yenn yi mais ça ne veut pas dire que aussi que am nañ droit wax yenn propos yi sur les institutions de la république rawatina nag koo xam ne excès gu toon comme excès gul nag am na lu mu wax état jël na ay dispositions moo tooñ boppam mënoon na xaar ba dugg ci biir saal bi ñëw am lu muy wax d'accord yaa léegi euh, par rapport ak euh, verdict bi jàpp nga ne ne euh, le droit a été dit mais sur le plan politique est-ce que jàppoon ne c'était juste pour apaiser la tension bi nga xamante ne moom lañ nemmeeku moo tax tey jii mbir mi demee ni du moment où Ousmane Sonko perdre li nga xamante ne moom moo di ses droits man daal vraiment comme nekkuma woon ci xelu juge bi te fekkewu ma ko man dama jàpp ne que rek. juge bi def na liggéeyam joxe na verdict am li nga xam ne aussi mooy analyse bi ma ci mën a tiire mooy lii dafa war a woon sénégalais yi nekk li ñu yaakaaroon ne que président Macky Sall mooy def loo justice di leen di dindi loo du dëkk waaw. donc jàpp nga la justice elle est indépendante. à 100 pour parce que tey ne serait-ce rek. Euh, euh, président Pastef combien de fois la wax ci justice bi loo xamante ne ñoom amoon nañ droit sax porter plainte vous insistez trop trop sur ça euh, vous insistez trop sur oui vous insistez trop sur day wane ne justice bi dafa dafa indépendante comme si da ngay insinuer que ëllëg bu décision amee nañu xam ne au mois la justice indépendante na ci ci bi vous insinuer lan parce que on commente le verdict hmm, foofu nga verdict yeggoo feneen. parce que dafa am actualité boo xamante ne dafa précédé ñoom lu nekk wax nañ ko justice bi te lu ci nekk yaakaaroon nañ ne dina ci xew te loolu yëpp amul Fatou Abdou am na loo xam ne aussi kenn ñu ko tere ñu xalaat comme lu ne wax nañ ko justice bi dañ leen instrumentaliser dañ leen jënd dañ leen a lii dañ leen lii ñoom fi ñu doon xaar justice bi justice bi demul foofu mais kon nañu nangu ne du leen jox du leen jox dëgg par rapport à euh, l'instrumentalisation de la justice parce que suñu suñu gisee euh, tey jii ñu nekk même ci biir génn euh, di wax ne que ñoom dañoo démissionné ci justice bu démissionné d'une part d'autre part je pense que fii lañ ko dalaloon seen gan maître maître Ndoye si je ne me trompe mu wax carrément ne day toog des fois di jot ay instructions yuy jóge ci ay ministres mu nekkoon des révélations yoo xamante ne dañoo graaw quand même ci ci ci république est-ce que loolu du jox dëgg opposition opposition bi yaakaar toujours ne que euh, dañoo instrumentaliser lii di justice. man daal pour le moment ci li ma xam mooy ci li xew tey ak li xew suba ak li li xew lu passé tamit euh, li ma mën a wax mooy le juge même bu la ministre woowee ne la defal lii sax yow dafa am serment boo xam ne moom nga euh, moom nga def donc da ngay juger sa diggante yàlla. ak li nga xam ne moom moo am muy dëkk c'est donc ba tax na tey jii nii lu bëri day am nit ñi di jàpp ne que dañu instrumentalisation dafa am mais je pense que lu ci bari nit ñi dañuy wax nii rek mais du loolu. Euh, donc xam nga damay bañ a répété waat procureur Aliou Ndao fii seen show. Aliou Ndao ñu laaj ko moom laa wax carrément ne. ah oui oui le mm-hmm. procureur Aliou Ndao le nom m'avait échappé justice bi. Mm-hmm. Euh, magistrat yëpp quand même leen xas. il avait même dénoncé li ñuy wax magistrat yi mais il reconnaît. que ne am na immixtion de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire ba rappeler bi nga xam ne euh, euh, dafa doon topp ki nga xamante ne moom moo nekkoon Ziguinchor vous m'aidez Abdoulaye Balde Abdoulaye Balde bien sûr. alors euh, bi mu wax ci Abdoulaye Balde que ne le président Macky Sall daf ko wax ne ko bu bu mu jàpp Abdoulaye Balde. et il a dit jusqu'à présent amul kenn koo xam ne démentir na ko entre exemple exemples yoo xam ne dañu koy jot ci ñoo xamante ne ce sont des acteurs de la justice est-ce que loolu taxul aujourd'hui que le débat se pose sur l'indépendance de la justice Thérèse. léegi xam nga li ma la wax léegi rek moo ci nekk il faut que ñu respecter les juges de bien sûr qu'on les respecte. non non ça ne nous empêche pas loo xam bu ñu ko leen ko waxee quand même respecté wuñu leen vraiment je suis désolée xam nga lu tax parce que tey jii nii wax naa la léegi ku ci nekk da nga sa serment am nooy liggéeyee lu tax tey man maa ngi rappeler un fait bu ñu waal élection locale am na ci dëkk yu bëri yoo xamante ne sous-préfet yi dañu invalider woon liste yi parce que amoon na ay irrégularité ci remplissage liste yi pourtant bu ñu demee ci numtu sax euh, ci ci tribunal yi tribunal dañ leen a jox dëgg ba ñu bëri dem présenté wu donc mënoon naa lim yeneen fee par exemple Sitor nduur tey fan la bokk. waaw ah. pouvoir pouvoir la bokk luñ ko accusé ah du viol anamu du mu ngi ci prison bi. est-ce que mën nañu wax ne deux pois deux mesures am na au même moment. ana Ousmane Sonko mais mais waxu procureur Aliou boobu fan nga koy teg. non xaaral rek ci waxu procureur Aliou Ndao bi laay ñëw. Hmm. dama lay tegal ay fait ba pare. parce que dafa am yoo xamante ne il faut nit ñi di ko.